vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core t le smartphone Core x et le téléphone flottant Shark x sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. Core t performant, d'une très grande résistance, éprouvé aux normes militaires IP68 et doté d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à sur la Corniche Digital Store, améliorez votre quotidien. Cheikh Bakhoum euh, directeur général de l'agence de l'informatique de l'État euh, gannaaw bu ñu sant yàlla euh, julli ci yonent bi sant Serigne Touba ñu ngi am mbégte bu ñu ñëwee fii la xalif général des Mourides dalal ñu muy la délégation de l'agence de l'informatique de l'État mais également porte-parole yoonu Mouride Sëñ Bass suma xarit également dalal ñu fii tey am na ci mbégte nag parce que agence de l'informatique de l'État daanaka ak yu bari mu ngi fii ñëw di fi def ay liggéey yoo xamante ne le président Macky Sall moom moo ñu ko sant euh, agence de l'informatique de l'État nag am na chantier yu bari fii ci Touba ak ci département bu Mbacké euh, mën naa ci lim rek li ñuy woowee Safe City bi nga xamante ne dañu koy def avec les forces de défense de sécurité mais également surtout avec la coordination du ministère de l'intérieur ci lépp loo xamante ne dafa nekk ay jumtukaay yu mucc ayib yoo xamante ne day mën a permettre les forces de défense et de sécurité ñu mën a gën a def seen liggéey lu ci mel ni ay caméra intelligente ñu déployé ci ville yu mag yëpp te ville yu mag yooyu Touba bokk ci daanaka boo génnee dakaar ci wàllum population Touba moom moo ci ëpp donc ci wàllu woowu nag président la République instruit ñu liggéey avec euh, le ministère de l'intérieur ñu liggéey également avec euh, autorités religieuses yi nekk biir Touba yëpp euh, pour mën a def le dispositifs la donc déployé nañ fii. daanaka cinquante caméra yoo xamante ne artères yu mag yëpp daanaka couvrir nañ leen loolu nag jàpp nañu ne dina mën a baisser lu ñuy wooye le taux de criminalité dans la ville de Touba euh, beneen bi aussi mooy wàllu connexion wàllu connectivité wàllu woowu également gannaaw bu nu gisee opérateur bi ñu def euh, agence de l'informatique de l'État aussi contribuer na ci lu bare bare ci lépp luy service universel def nañu fii ay point ngi fii un peu partout la ville de Touba pour mën a permettre durant le magal euh, pèlerin yi ñu mën a am accès internet fii ñu taxaw nii muy këru Xadimu Rasul tey gis nañu connexion euh, ADIE free bi nga xamante ne dañu ko jagleel pèlerin yëpp yu fi ñëw mais lépp loo xamante ne mooy service public euh, ñu ngi ci liggéey ak service su état bi yëpp pour mën a am dans le département de Mbacké bi ñu woowee les espaces Sénégal service bi mën a tax euh, lépp luy service public ñu mën a ko joxe ci benn bërëb citoyen bi du mën a du soxla dem ci service yëpp pour mën a am këyitam bu demee ci espace boobu dinañ ko toppatoo nu mu waree jox ko këyitam ci ay euh, ay fan yu gaaw a gaaw a gaaw donc loolu mooy ay projet yoo xamante ne ñu ngi koy doxal fii ci Touba